bu weex bi Malick Gakou. monsieur le maire bàyyi tooñ. foogoon ne man dañ ko ciy tàbb de ah non non dama dégg rumeur yi. ah ay rumeur ñu war mag. ci réew mi xaw ma woon nag ah, ah, comme jotuma liir xool. Eh, ma doon laaj rek ndax fal nañu ko am déet. ndax signal nañu ko am déet. <laughs> comme na si ak waa waa seen TV Facebook am nañ tey baax. <laughs> ok ñu ngi fi jeexal ah, ñu kaas. démb rek doon kaas ñu ne lu tax am na duñu duñu nuyu quoi. ñu ah nuyu naa leen de. nuyu naa leen de kon nag yéen waa seen TV l'officiel. jël ma direct li guy gi naan jël ma direct. jël ko direct mu nuyu waa seen TV l'officiel. voilà seen TV l'officiel baa ngi noonu. seen TV Facebook. seen TV direct. seen TV YouTube. Mm-hmm. lay wax seen réseaux sociaux. réseaux sociaux <laughs> looy wax ñu nekk ci oto yi. a ah, ñu nekk ci oto yi waaw ñu ngi leen di nuyu rek ak ñuy déglu Zik FM yëpp. waaw siyaare tamit euh, Ajaratu Mami Samb moomu ak Chimère euh, Diop. Mm-hmm. ak euh, Simon Faye ñoom ñi nga xam ne ñoo xëy ci rajo bi. voilà Zik matinal Zik matinal yëpp ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare. Mm. waaw looy wax Mami Samb. tey daf ma doon attaqué bi ñu bi oto bi jël ci. Ah, Mami Samb day Mami sàmb day xaw ma lu mu lay attaqué <laughs> Mami Samb tey de téléphone bi. damay ragal ni naa ko soxla après. koyoo. lii boo ko soxlaa xamuma maa loxo dara na gémmiñ. ah liñ fi nekk di wax yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp. tonton li jënd na ko depuis 2016. lii loolu. lu ma yëgut. lii coow li nii. dañ ko fiy tere googu may daanele. Ah. bam mu ko dagale nee du tey. ah. suul gaz du ko tere xëy troisième mandat dañ ko fiy tere. nekk di 2016. waay waay monsieur le maire bàyyil ma dem. jaajëf yàlla baax na de. bàyyil rek dinañ ci yàgg. tey yàlla. tey lo tey la loxo di dar gémmiñ. tey yéen a kaay groupe des médias. leer laa la wax. laaj termine yéen a kaay ñëw ñun ci. Mhm. xalaat baa ngi nii yaatal front bi rek. Mhm. opposition bi moom danañu booloo wala ñu dee. tey. rek wala périr. booloo coalition yaa ngi nii. dégg nga loolu. Mhm. mi ngi nii <laughs> comme que kee moom bu soow. woo nañu ñoom suukar. <laughs> ak ndox. dañoo too jabet muroog soo suukar ndox du teg seen visible waaw kay waay ca jamono joojee waa suufa ngi nii waa caakire nga lax ñoomi hmm. ñoomi ba suukar si du bari fondeg laax ñu ngi nii buñ ci def tege tege xaafa ngi nii Mamadou Lamine Diallo Thierno Alassane Sall Bougane Gueye Dany Barthélemy Dias Ousmane Sonko ak Abdoul Mbaye ñoo jàkkaarloo soo ca jamono joojee Macky ngi nii ak Idriss Seck Omar Sarr ak Moussa Niass waaye xoolal ca jamono ji nekkee ci wàllu politique kaa yaa ngay yokk corona ba kaa yaa yokk téeméer ak ñaar fukk la démb laa la wax monsieur mbas mi waaw waaw mhm. wal fajiri ñëw ak ñun ci taxawaay ci troisième mandat bi ci troisième mandat dafa gasal dëgg sërëxal e, e, e, càmmiñ la cey way dafa piégé Macky de <laughs> woo ko ki démbam ji monsieur le maire. Hmm. troisième mandat bi dama ne nañ ci dellu si ci kanam. kon bi li ñëw ak ñun ci. sàngara soo xam ne ci ay fowukaay xale yi ñuy jaay lañ koy defaale ca biir. waa léegi loolu mooy lan tamit. benn réseau ci boppam la ñu teg loxo kon ni ko démb. dégg xale yi ñu bëgg a ñu si force ah doy na waar Sud Quotidien monsieur le maire ñëw ak bët bi mu jël teg ko ci Dakar. Hmm. Macky Sall bët bi mu jël teg ko ci Dakar. kon wax ji wax ji Dakar la. non non non non. wax ji wax ji Dakar la. sa enseignant ñoo bari. Hmm. Serigne Thiam enseignant chercheur la université Cheikh Anta Diop bu Dakar. Hmm. départel ca caisse d'avance ba. ba tey ñu ne dañuy dindi ville de Dakar. Hmm. léegi lu fay ne maire bi dañ koy fal par décret wala délégation spéciale te loolee ba léegi Macky la. délégation spéciale. waaw wala mu tabb. mais dama ne boo pertee sa capital waa ana lu légitime lu local légitimité locale nee na da nga koy ñàkk. tamit nag. lu mooy dëgg nag. loolu mooy dëgg nañ ko waxtaanee. ah. nañ ko waxtaanee waaye. yow daal tànnal kenn ku jiite sa koñ comme ni nga ko defee woon ca Matar ba. Mm-hmm. te baax na Ablaye Wade indilee délégation spéciale ñu tëggaat élection nga gañe teg fa mataar ba. tànnal sa mbër daal. oui bàyyil waa Dakar tànnal seen bopp. Hmm. <coughs> ay bàyyi waa Dakar tànnal seen bopp waay monsieur le président <laughs> dégg nga loolu monsieur le maire. dégg source a ñëw a ngin ci coow am na de hmm. problème yaa ngay tàmbali de hmm. ah waaw gis nga foo force covid 19 bi ñaari milliards yi nga xam ne koppar gi ñu woon presse bi ak fecckat yeeg yooyu mi ngi nii anañu le monde de la culture gii deux milliards ñoo ni may réer cin faqul bënnul cin faqul bënnul yax ni mes tey <laughs> ani koppar bi. moo jaaxal yëpp parce que ba pare ministre Abdoulaye Daouda Diallo dëggal na ci budget deux mille vingt et un bii ne dépensé na un milliard soixante cinq millions ci lu jëm ci wàllu ndimbal lii ñu jagle leen SODAV neuf cent millions presse ngi nii ak culture urbaine bi waaye daa su ministère de la culture ak communication Ablaye Diop. dafa hmm. weddi Ablaye Daouda Diallo. nee loolu amul. amul nee na un du un milliard soixante cinq millions. xoolal Ali Bathily DG wu SODAV nee na gis nga ce milliard bi nga xam ne jot nañ leen ko loolu du subvention waa soda de dañoo delloowaat reliquat ba cinq cent trente deux millions dañ ko delloowaat parce que nee na ministre bi moo leen ko laaj ah ko joxee pare laajaat ko delloo nañ reliquat ba ministère de la culture lañ ko delloo mm-hmm. moo tax Macky wax na ak ministre Ablaye Diop lu jëm ci wàllum reliquat boobu mais Mamadou Ibra Kane borom stade ak suñu làmb mooy mhm. président CDEPS mhm. jiite patron de presse yi bëgg mu leer presse bi jotuñu fistin waa nay leer rek milliards yooyu ñuy wax ni moom lañ dajale woon pour xaw ma ñan ak ñan ak ñan Mamadou Ibra Kane nee ñu dara dërëm te dañoo communiqué ci Covid bi ba sonn waaw kay waay réew mi quotidien ñëw ak ngi ci Famara Ibrahima saañaa ak ñi mu nekkal mhm. dañ leen a sunobee daanaka tuuti leen dialogue waaw yow ñu ngi leen sant pour nit ñi jalo yi ci kaw. Mhm. boobu Macky ñoom mburoog soow wuy ma ndekke ñi ngi gérer ci suuf. ci suuf di ko waxtaane ah, ñaari dialogue moo amoon daa ah, mu ngi nii dialogue souterrain. dialogue bu bëccëg. ak bu guddi. ak bu xaaja guddi. dégg nga ma de. ak bu xaaja guddi. dialogue bu bëccëg baa ngi nii moom la Famara Ibrahima Sagna yore woon. dégg nga mm. waa fii lii tamit jaar tey ci sama biir bi itam ni ngi may gaañ rek. <laughs> baba géré ko rek garaawul. ma géré ko. <laughs> rek garaawul. fii lii katamay coqtaan. <laughs> dialogue aux trois bi daal boo bëggee dégg dëgg dafa am dialogue ba ca kaw mooy bu ñoom Famara Ibrahima Sagna. Mm. am dialogue gu guddi. ah dialogue ak ñenn am na dialogue gu fajar. am na bu fajar bi kon. mooy mu roog soow. xam nga sa patron wayoon na fi. guddi bu jékki-jékki woon doon ba cëkk. dina xumb lool loolu ba jaaxal ñu leer <laughs> la tax nag ba gars yi ci boppam kon daal di mer mhm. monsieur le maire l'observateur ñëw ak ñun ci mhm. médiateur de la république Alioune Badara Cissé anam moom kenn dégg du ko de li mu wax dafa doy waar mhm. nee na gis nga médiateur amul benn matériel bu ñu mënee di dem ak dëkk kon lu mu doon média def médiateur looloo jaaxal nit ñi médiateur ci boppam médiateur ci boppam voiture de fonction amu ko xanaa ñun ñi nga xam ne ay xuusmaa ñàpp lañ sax. <laughs> dañuy jox kalandoo bu ñu bu ñu bu ñu doxee suñu soxla. léegi moom. médiateur. mais waaye moom. ah ak ay doomi ndar. Mm-hmm. laay ak ay garmi. nee na xam na liñ ko yen liñ ko yenn sas wi xam na ko. xam na mission moo tax benn du fi nekk di sëqat. Mm-hmm. du fi nekk di onk. du fi nekk di jàmbat te du fi nekk di jooy. jaru ko sax. déedéet. <laughs> non non non Famara ngi ne. xoolal rek nee nañ budget la budget la waa dialogue bi amul. amuñu budget dafa doy waar. juróom-ñetti commission ñoo nekkoon ci dialogue national bi une seule commission benn tundum mooy commission politique bi rek ñoo joxe seen rapport mu des juróom-ñaari commission ñu ne amuñu xaalis budget Famara Ibrahima Sagna tekki na ma tànga mais démission bi nag amul kenn ku ko dëggal aussi. ah kenn dëggalu ko. ah kenn confirmé wu ko kenn confirmé wu ko. moom moom Baye Mbindi ji dana ca wax. koy waay 17 décembre a ngi nii 62. Mhm. Senghor ak Mamadou Dia. voilà defante bi nag bisu tay bi la woon. fàttaliku. yàlla suñu borom. libération yéen kaay ñëw ak ñun ci. ah mbirum wuyu piir. Mhm. Babacar Dia mujj naa daanu de. Babacar ma nga kaso. mooy waa ji ñëwoon moo doon toppandoo signature Mame Boye Diao. am ah, mi ngi. ñaari opération ci wàllum suuf la ngor. 400 million moo indi coow li mu ngi nii Ndeye Penda Niang nag moom. nee na may daw. ma jama ñang bi ko enquêteurs yi laajee daf leen wax ne leen pour ma feeñal ndaw si loolu liggéeyu police la na ko police defi. cey cey les éco yéene kaay ñëw ak ñun ci. contrôleur des impôts baa ngi nii ki doon toppandoo signature Mame Boye Diao ma nga kaso moom Babacar Dia ak juróom ci ay complice am euh, caabi féete na ginaaw. teel a Ndeye Penda Niang nee na may daw. escroquerie bi ci cent quatre-vingts la. benn jigéen bu ñu ñëwoon dañ koy jaay ñetti terrain nekk ay dóor la dégg nga ca xaafa ngi ci terrain bi. xaafa ngi andi xaaf xaafa ngi ñëw ani xaar fan ngi ñëw aatu ma réeroon <laughs> eh, aatu man feeñ aatu yaay jaay yow aatu dalal na Habib Sy mhm. seeti na Habib Sy benn seeti Aïda Mbodj ñaar gisee naa ak Ousmane Sonko ñett gisee ak Abdoul Mbaye mooy waa CRD mhm. euh, euh, euh, gisee na ak Momar Soura mhm. gisee na ak Mamadou Diop Decroix tourné na loolu yëpp eh xaaf de boo bëggee dégg dëgg dafa ñëpp instant bi opposition bi kon baax na <laughs> kon baax na léegi mooy yéene kaay nañu xoolal Sonacos a ngi nii di sukuraat. Sonacos mel xam nga daaw dañ doon wax naan ay cent cinquante mille tonnes gerte lañ soxla woon mujj dal ci ay soixante cinq mille xaw ma lan ren na yées luy xeetoo jiw graine gisuñu ko Sonacos. te bu makki bu makki yéexee tuuti làmbaay ñaaw. Hmm? léegi solo yéene kaay nañu corona yi yokk gi mu yokk yéeral xoolal monsieur le maire président Macky Sall ci boppam ay mesures yu bees la bëgg. yeneen yu bees. ah oui ah oui ah oui personnel de santé leen dooleel. service d'urgence ak réanimation di Sowétas danañ leen renforcer. ak presse bi di joxe xibaar ah doom nag luy jot jot na ginnaaw te. Mhm. waaw moo tax le quotidien yéene kaay nañu mi ngi mi ngi nii Antoine nag xamal na acteur culturel yi ne leen déedéet. doxum ñaxtu bi tey la waaw non. sitine pour bàyyi leen ñu tëgg ak yooyu dajewaat. ah kon déedéet ministre ba bougé wul fa mu te xam nga ni mbir mi seen traité ngi nii. décembre ji décembre ay seen fii la neexee. décembre ay seen de. man nag yonent yi bees yi nag commencé génn nag. ban yonent maam moo jaaxal nit. kii moom teel na dem moom. kan. ah du du du baamun sa kii. waaw nee na dañ koo faat xaw waa waaw. critique yéene kaay monsieur le maire si mission baa ngi nii. Hmm. mission bu bon bi Maodo <laughs> dañ koo mujj doxal. dialogue politique. Amar ah. Ibrahima Sagna. Macky Sall barki démb ci anniversaire bi lu mu wax. daje ma nguróom soow. dialogue bi la indi taafandaloo ko daanaka mhm. dialogue bee jur nee na loolu xoola mooy waxtaan guddi ak waxtaan bëccëg kon baax na ba ma la doon wax leeral askan wi nag nee na ñaari million ci ay sénégalais génn taxaw place de l'obélisque Amar woote waaw waaw ngir ministre ngir ngir ville yii buñ leen fi jëlee mhm. Sall na xaw ma fan la nar a teg noonu Amar Faye leeral askan wi enquête yéene kaay ñëw ak waaw kay gars yi dañuy fépp mm. culturel yaa ngi nii seen ndaje mi démb seen diggante ak ministre bi jurul dara dara ba dara booloo. ba dara booloo. direct news ñëw ak ñun ci waaye eh, ana Didi. ana hmm? Dakar Times bi. ana AMD. laal ko xool jaabanteel xool. xëy na hmm? direct wu Sénégal. dindi fi ville. ak élection locale ñaata yoon. Hmm? caxa caxatee constitution. suñ démocratie si suñ démocratie si ñaar fukki at yi dañ koo jama jama jama jam ba amatul njariñ mu hmm. ngi nii ah mu ngi nii hmm. te Macky Sall nag warul def lu yées li Abdou juuf def hmm. ak Ablaye Wade loolu la journal bi wax dégg nga mu ne c'est que am na tey gars yi dañ la ratewul dara dara dara Sen TV l'officiel li nga maa ngi ni Sen TV l'officiel ak appel yi may jot lu ñuy wax waa ana Didi. aadama oo oh, Didi mais gars yi nee nañ neexul ba neex na ne tey di yaa dem Marobès. de déedéet non tey Marobès nga def Ahmed. monsieur le maire Dakar Times. moom laa doon tëjee ana Didi. MB bugaan nee na tey sa bees nga def. non non non non bugaan mu ci yàq sama der la dëkk. dégg nga loolu monsieur le maire. yéen waa seen TV l'officiel wax monsieur le maire Didi indil ma Dakar Times bi gaaw temps bi xoj na ma Dakar Times tey. lu mu wax. daf ne mbaat waaw kay. ah ñëw na mi ngi nii mbaa du kon troisième mandat troisième candidature. Mhm. mënul ne limitation mandat. journal bi ne journal bi ne. Mhm. conseil constitutionnel. Mhm. tontu nañu Macky sàll keroog ba ko Macky bindee leetar 2016 ca référendum. doon ko laaj naan ko ndax mën naa wàññi sama juróom-ñaari at def ko. def ko ñaata. def ko juróomi at. xaw ma Macky loolu la promettre def ko cinq ans mais après dafa saisir conseil constitutionnel. mu ne leen laaj ko ba xam ndax mën naa wàññi sama juróom at yi def ko juróom. conseil constitutionnel conseil. conseil ba bañ mu pousse juróom-ñaari atam yi. moo waral 2012 2019. mu baare. mu ne nee na waaye ba ko conseil di di tontu lam cabaxal ca suuf te ñu bëree bëri bàyyiwuñ ci xel. Mm-hmm. conseil constitutionnel dafa dëggal troisième candidature u Macky. bu nit ñi yaakaar sax ci ko <laughs> non loolu il faut <laughs> sama téléphone bi. wala MD yaa ngeen ko. ah loolu looy jël. non non non. ah MD dama ko jox fii léegi. Eh, MD jox ko ko. ah, ah eh, en kon tey da ngaa di décret ak décision. anamu. <laughs> non lii du ma ko tey anamu fii. non boobu kay yaay manipuler wala nga jox leen ko fële. jàkkaarloo laa merci beaucoup voilà. très bien wallaay barki rasuul laay. c'est tët xoolal gis nga. conseil constitutionnel. monsieur le maire xoolal décision yii. saisi par le président de la République suivant la lettre numéro de du lan 14 janvier 2016 inscrit au greffe du Conseil constitutionnel sur le numéro tel tel tel vu la Constitution notamment en sus lan article 51 et 108 la wala 10B. vu lan ah, man sa bëti neexul de. vu la constitution notamment en ses articles cinquante et un mhm. et cent trois. vu la loi organique numéro 92 23 du 30 mai 1992 sur le conseil constitutionnel modifié par les lois organiques numéro 99 71 du 17 mhm. février 1999 et numéro 2007 03 du 12 février 2007 continuez yow. joxaat ko ko continuez continuez continuez. page lii mooy li loolu makki bi mu bi xoola Macky moo bind conseil constitutionnel doon ko laaj. ñoom ñu war ko tontu. merci beaucoup déglu de xoola point 30 bi loolu 28 bi la. 30 mhm. bi. considérant monsieur le maire nag ma déglu de. ok moo ngi ni jàkkaarloo moom. barki yonent bi. considérant. eh gars yi bàyyiwuñ ci xel. considérant qu'il résulte de ces précédents initiés sans texte lors de la révision. de la constitution de 1963 par la loi constitutionnelle numéro 91 46 hmm. du 6 octobre 1991 est consolidée lors de l'adoption de la nouvelle constitution du 22 janvier 2001 hmm. mooy Wade bi soppee constitution bi de la loi de révision constitutionnelle numéro 2008 66 du 21 octobre 2008 yaa ngi may déglu hmm. avec le soutien de dispositions transitoires destinées à différer l'application de la règle nouvelle. que. de la règle nouvelle virgule. loolu nee naa ne virgule point sax day compter. Eh. que le mandat en cours. mooy mandat wu sept ans hmm. au moment de l'entrée en vigueur de la loi de révision référendum ba ñu indi. Hmm. coppite gi par essence intangible. Uh-huh. et hors de portée. de la loi nouvelle de mu ñëwaat wala mu dolliwaat beneen page bi. non non. fala fii dégluwoo ma de déglu ma de xoolal fii la ñu jollee constitution 63. 63 la. waaye yow ñëwal yow fii. waa léegi MD xanaa da ngay sot. non eh non Dakar Times bi moo ko bind c'est bien voilà bàyyil ma taxaw fi déggoo ma de. Mm-hmm. non man man man mbay ma de. <laughs> yàlla xam ne dama laa suivre. conseil constitutionnel tontu nañu Macky Sall de. xamal nañ ko carrément ne ko sa mandat wu deux mille douze. Mhm. deux bokkul ci deux mandats consécutifs. après après. nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Mhm. deux mandats consécutifs deux mille douze deux mille dix neuf nee na ko bokk ci. bokku ci Macky bi mu koy bind lettre mu ngi ci premier mandat. waaw. mandat en cours boobu la ko wax. dégg nga de ñu nekk boobu bokku ci 63 la mbir mi jolli. Mhm. ñu ñëw 91 consolidé. l'adoption de la nouvelle constitution du 22 janvier 2001. 2001 mooy ba Abdoulaye Wade organiser référendum. Mm -hmm. et de la loi de révision de. Mm -hmm. avec le soutien des dispositions de la règle. la règle la règle nouvelle. que le mandat en que la mandat en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi de révision révision mooy constitution Macky mhm. par essence dafa neexul sax dégg te jekkul nag intangible et hors de portée de la loi nouvelle ok donc sept ans mandat bokku ci non je ne suis pas bien saisi bien sûr donc sept ans bi bokkul ci deux mandats consécutifs yi ñuy wax loolu dafa leer d'après ñoom liñ liñ liñ ko wax. c'est que paase da nga waroon solu quoi ñëw fii ko non man li ma la wax dafa leer li nga fi liir nii interprétation bi leer loolu la simple. non man damay mujj. elle est précise li mu wax nii waa conseil constitutionnel li ñu wax dafa leer. sa sept ans yi njëkk yi bokk ci. si ñaari cinq ans yi sept ans yi njëkk yi bokk ci ñoom loolu la ñu wax. est hors de portée de la loi nouvelle. jeex na wala kon nag moom. est hors de portée de la nouvelle constitution. ce qui veut dire que deux mandats consécutifs yi. mooy mooy deux mille dix neuf deux mille vingt quatre. deux mille dix neuf deux mille. vingt quatre. ah match bi tas na. léegi nag. léegi man li may laaj. wuy ma Mimi Touré looy tontu. non non non ku yaakaar ci conseil constitutionnel. <laughs> xam nga nee nañu conseil constitutionnel. maanaam moom rek moo am sañ-sañ. habilité. addu ci lu jëm ci wàllum cartum réew mi. Hmm. ñoom. ñoom juróom-ñaar ñooñu ñoom ñoo am sañ-sañ wi di ko aar di ca dogal waaye nag le gardien de la constitution nag. mooy le mm-hmm. président la république. président de la république. mooy seen chef. Mm-hmm. waaye pour rafetal rek. moo tax mu laaj leen da leen a bindoon ab leetar. laaj mm-hmm. leen. am naa yéene dindi ci suma mandat. sept yi. ñaari at parce que maa ko diggee woon. ñu def ko cinq ans. waaye est-ce que loi may na ma ko. ndax yoon may na ko. juge yi ne ko déedéet loolu day tax kon ku ñëw. ne wàññi naa yokku naa wàññi naa yokk naa puusal juróom-ñaar yi mat ba mu jeex ok waay coppite bi ñu ko waaye nag jàppal ne sa juróom-ñaari at yooyee constitution bi bees bi dafa ni kenn mënta def ñaari mandat yu taxaloo nu ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs consécutifs dégg nga loolu waaye nag yow jàppal ne ñaar yu consécutif yooyee bii nekk en cours constitution bu bees bii tax koo jóg kon bokku ci <laughs> bokk ci. ce qui veut dire kon boobu bu jeexee des na ko ñaari <laughs> ñaari mu war a tegle. non non non dem ngi benn bi. wuy ma mu des benn bi 2014. dem naa. waa déedéet wax dëgg nag. non nag xam ngeen ne comprendre naa nag. non comprendre nga. <laughs> waa léegi dama bëgg xam. waaw ñi doon défendre loolu fan la la ñu wax tey. yaa Moustapha Diakhaté. Euh, yaa waa léegi ma ni euh, damay mujj doo dem. non non si si. doo dem. tey tey xam nga tey il faut nga andil ñu ay leeral parce que tey da nga waroon jël tey jël crayon bi parce dafa jommi équation bi les constitutionnalistes Serif daa jommi tey xoolal affaire yi xoolal ba pare xoolal hmm? wuyu ma mi ngi lay boppam <laughs> bu ñu la gis nga bu ñu la yónnee texte bi c'est un texte kilométrique texte bi comme fii ba doo ko bëgg a lire alors que li moo ci xoolal xam nga lu ci xam nga lu ci xam nga lu ci am gën a am solo. benn phrase mujj bi. et hors na portée de la nouvelle de la de la nouvelle. Ah, de la loi nouvelle. monsieur le maire. wuy <laughs> ma tey ASC Guédé tey mooy première fois affaire bi du am njaab njaabu Guédé la. ah déedéet bu def njaabu Guédé nag déedéet nag déedéet nag déedéet nag déedéet <laughs> gars yi si nekk mu may proposé tey ban njaam ngay def da nga naan njaabu Guédé Guédé xaju fii monsieur monsieur le maire loo gis war nañ ko argumenté loo gis ko si nekk am na ci xalaat. at kon da dem nii looy wax waa dëkk ba <laughs> tey monsieur le maire bu Guédiawaye neen dafa bett ñu koy jaajëf ñu kon ñu koy jaajëfal bu baax kon du ñu def lu <laughs> jaajëfal ñi nga xam ne ñoom ñuy topp ci fajar gu jot euh, di ñu euh, suivre Mami Samb borom Zik euh, matinal dañu lay déngoo delloo lenge yi